xaatimu nabi imaam mursali man gis nga ndëpp tubaab su amoon billaay dinaa ko yóbbu ko fi ñu ndëppal ko ban heure laa oote woon réunion ba léegi mënul fexe ba dugg fi nekk mais ki soof na sonoon nañu sonal nañu torop yéen lan moo tax ngeen jël ma di ma woo ci kaw di ma traumatiser comme ça ak seen yi ngeen may kompaloo ay ca wax leen damay dem heure baa ngi jot eh toogal ak sa orange bu bëri soriantoo ak Clémentine fu ñu joonee rek orange nga fa sooy wax ak man da ngay wàcce sa kanam ak sa beut parce que man dama la xawa ragal. ragalo sax yalla ba ragal nit kessa la bul ma ragal man na auto won réunion bi fi pour affaire Abu Bilal. mané deglu abou Abu Bilal chaque jour mi ngi taggo marché matin soir to du retourner ba indi mbuus du retourner ba yoré sachet du yor dara Abu Bilal lu nek ci bopam bi yow def ci mom xawma day wor woru galé xawma dafa am jongoma bu koy invité loolu nak la woté won fi pour ñu tër trouver ci solution yéen lan moy seen problème lan mo len daal et puis ana seeni petit truc jigéen day am ay petit trugam sa jëkkër bu dee génn xamoo si lu mu nek muy passé de gauche à droite da ngay jël benn détective privé

d'accord nga pexe dire qu'on c'est sûr que Abou Bilal dafa réer ci kër gi ok amul problème soo leen d'accord avec man d'accord ok amul benn problème. ok ok. i ndeketee man ñuul naa de. Y'a ngi koy soogay xam. ok dina ko résoudre. eh tegaat eh, sa pardon. Euh, d'accord un pour tous tous pour un. cendaayan des koy laal ndaataay kuy laal dangay jooy dangay la gili gili neex ngeen tee bul jooy ma jooy dama jooy la salaamaaleykum sëñ bi na nga def jàpp rek bari na ah bisimilah lii la bu door koo yën waa ko ma tanta waa ko ja ya. illa dara nag ittaloo ko lu dul ma rek ak firange di xool fan laay dugg ak ñan weeru koor da ngay nuyoo pour am tiyaaba dugg ci kër yi di saafonte yow nag yaay dem bala sa tante nag nga may fiire waaye nag jàppal na tey comme que aawo nga te waroon joxe boon exemple jàppal nag tey képp kuy aawo wari nga boo tuddee awa di aawa wari nga ña la demoon ñaani ak ña nga xam ak ña nekk ak yow wari nañu ña la dëkk yow ñay seetaan waxtu bii dend ak yow ñoom ñëpp ànd nañu wari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 dafa bëgg yiw xam nga yiw dafa am solo ci jullit ndax bu yowmal qiyaamee yàlla subhanahu wa taala say yiw li may wax wa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin charran yara ndax nit suy def lu baax di ko bari dafay gën a yokk ay points ni kii mën nañ ko tuddee ci yu bari waaw ndax ni ci nit di góorgóorloo pour am dara moo tax waa ji gis ngeen ko moom dafay nuyoo rek pour am yiw gis nga benn Abdullah ibnu Amar ibnu Laas عمر بن العاص مونو نتالي نيانتي بي صلى الله عليه وسلم بن نيت لاج نكو بن غور نيكو بن اسلام مو گن آه، ايو اسلام خير نيكو ولا بن بن لن مو گن تي تي تي جوليت بي مونيكو تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف مونيكو موي جوخي نيام جوخي نيام توغو اي نيام بامو ييغ nga jox ko ay julit muniko luko gën ci diine amut muniko ak ban muniko moy nuyu ay nit wala servir len jam ñi nga xam ak ñi nga xamul xam nga julit bu rombe ay julit daf len di wax assalamu alaykum ñu delloo ko ko moo farata la ci buñ la nuyo nga delloo ko wa idha xuyitum bi tahiyatin fa hayyu min bi ahsanin minha aw ruduha da nga wax sax delloo plus que liñ la jox loolu nag bi mu wàccee seytaane sax dafa yuuxu ne alku na ñu ni lu tax mu ne yonent bi wàcce na loo xam ne bu ci ñaam ñëpp jàppee ñëpp dem aljanna kon mbokk yi loolu am na solo su ñëwee ci seen naafila fukkeelu guddi ak juróom-ñeent juróom-benn rakkaa la ñetti salmal rakk bu ne am benn fatiha ak juróom-ñaari qul huwa allahu ahad jaalana allahu min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsanahu assalaamu aleykum wa rahmatullah